bi mu ko rombee mu craché mais ci ci zone de crash bi la dem kon pour woon leen importance su zone de crash parce que tey exemple la tey jii nga xam si ci la ñëw ci site bi dafa tombe ak AIBD am même problème bi maanaam yàlla lépp lu muy def rek da programme ñun ñii booba xamuñu woon ni dina tombe man ak Clédor seen mii ni li ñu bëgg a def nii pour leeral sénégalais yi li xew fii ci aéroport que euh, dina dina dina tombé ak AIBD am problème boobu mu am maanaam pour que sénégalais xam kon danger wu ñun li nga am moom la ñu bëgg a wone parce que AIBD bu fekkonte ni tey zone de crash boobu defoon nañ ko comme nii bàyyi nit ñu tabax fa ay immeuble kon tey avion bi su dérapé génn piste de décollage bi kon du dugg ci zone de crash bi day dem daanu ci immeuble yi daanu ci kër yi rey ay nit moo tax ñuy def zone de crash ci décollage bi comme atterrissage bi fii nag lépp joxe nañ ko dinañ ànd ak yéen ba ci fi nga xam ne fi lañ euh, fi la fi la fi la fi la fi la piste bi nekkoon pour ngeen xool dégâts yi ñu fa def ak immeuble yi ni mu toll ñuy sorti de terre mais ke boo xam ne kenn mënu ko expliquer amul benn mu nekk benn cité boo xam ni sénégalais yëguñu lu xew euh, te cité bu ñu fi mën a wax bii presque moo ko doole parce que kii c'est une ville boo xam ne kenn ñu bëri yëguñu ni nga sénégalais yi waa ay immeuble kese yoo xam ne amu ci benn boo xam ni mën nga koo euh, mën nga koo tabax ci moins de 300 millions muy kër yu ndaw ndawaan ñooñu ñooy ay 300 millions mais des ñëpp immeuble boo jël lu mu gàtt gàtt dana def lu mat milliard te kenn xamul nu mu toll léegi nag lii ñun suñu position mooy bu ko état toj état wër la toj lu mel nii parce que sunu alal la état la toj lu mel nii parce que sunu alal la alal ndax suuf si ñun ñoo ko moom ñun aska wi. ñi ko jël amuñu droit jël ko ki leen ko jox jaarul yoon. ñu bu fekkee amuñu benn autorisation jalgati nañ yoon parce que amoo droit tax tabax ci suuf soo xam ñëpp ko bokk. beneen bi mooy alal jën fi def moomuñu ko parce que bu fekkente ne yow ñun ci tur yin fi nar a lim ci kanam tuuti dina gën a leer parce que daan génne liste bi. tur fi wax ñoom ñëpp kenn mus ci am ab entreprise wala ñu am dara ñoom ñëpp ay ndombay tànk lañ amoon ci réew mi wala ñu euh, euh, jege réew mi wala ñu jege nguur gi jege nguur jege nguur ñenn ñi sax amuñu sax poste ci nguur gi mais dañoo jege nguur gi. liste bi su génnee sénégalais yi daan dar seen gémmiñ kon nag ñooñu nga xam ni euh, dañoo ñëw fii ñoom amuñu fenn fu ñu teg li ñu def nga xam ne ku ko ci def sax waroo war ngaa mën a justifier fan nga jëlee alal ji parce que koo xam ne mosoo am am xëy yow jege nguur rek nga def nga mën a tabax ab immeuble boo xam si ëpp na milliard kon ça veut dire yow def nga li ñuy tuddee enrichissement illicite maanaam alal ji fi nga ko jëlee jaarul yoon kon nag alal ji jaarul yoon loolu rek ñooñu bu ñu toj parce que man li ma gëm alal sa alal doo ko yàq ma li ma gëm nit du yàq alalam immeuble yi nan ko bàyyi mu yegg bu ko kenn yàq mais buñ ko bàyyee mu yegg ba pare na ci état teg loxoom. bu ci état teg loxoom ku ci nekk nga justifier fan nga jëlee alal ji ak kan moo la jox terrain bi ak nu tax nga def ko léegi bu ko defee état bu ko bu dee ñoom mun ñu ko àggale état àggale immeuble yëpp. bu ko defee bu ñu àggalee immeuble yëpp état def vraiment lim ci war def pour que sénégalais yi ñu tegal leen ay conditions yi pour ñu mën ci accéder ñëpp yem parce que liñ ko defaree sunu alal la parce que bu dee enrichissement illicite ak nu mën a jaare même blanchiment d' argent yooyu yëpp c' est des dégâts yoo xam ni waruñu seetaan kenn di ko def ci suñu réew parce que loolu day delloo ginnaaw am réew kon nag ñun li ñuy conseil état bu Sénégal mooy mooy site bii buñ ko toj site bi bu ko kenn toj mais nañ ko récupérer pour le Sénégal nañ ko boole ci patrimoine bati de l' nga xam ne dañ koy àggale bu dee ñoom euh, fii leen mën a yem